Ah, bii de moom jekk na moom. Ah, bii kay moom tawaar kàlla. xale yi dama leen ko bàyyee. kay moom tawaar kàlla yow kay. ayib sa bula moom kay eh, takk ga ñu ma koy wax sax. waaw ma ne leen guddee takk takk gi kay xaw naa dem gee sax. moo ñu ma koy wax man leen soxna Fatou moom ma ko wutal. Mm-hmm. man daanaka yére yi may sol yëpp moo koy wut. ah kay daanaka aw aw ma sa fay. Uh-huh. léegi rek maa ngi koy waxtaane fee. Mm-hmm. moo tax yal na yàlla may ñu soxna su baax. amiin eh, ni ma koy waxtaanee noonu rek bari na ci ñoo xam ni. Mm-hmm. ñu ngi ciy roy. waaw mooy jigéen ñooñu woon ca takk ga. Mm. indi woon son yooyu ñu xewal léegi. mooy euh, këfin yooyu ñuy def ci mbuus yi. <laughs> da damaa waaru sax. ndox bu kee <laughs> waaye kóoru ren gi jaaxalu la. kóoru ren gi faat. ah man de daaw man teel bi fekk na sama suukaru ko dama am bay joxe. yàlla xam nag ne waaye ren moom dara dara dara. damaa xalaata xalaata xalaat euh, bërki démb. Ah. maa ngi julli tàkkusaan Mm-hmm. damaa julli juróomi rakka. ëpp naa def. ndaxte moom daal xalaat bi may xalaat ci koor gi. kooru daaw ga moom fekk na macha allah. waaye yow nag da yor yor naa li may def ma ren sax da cee raw. Mm-hmm. ndax koor gi gën a metti mooy. Ah. woor ba pare daanaka sa poos doy na waar. waaw loolu de dund bee seer na te yow te yow daanaka doo kenn dara. looloo ma gën a rey ndeysaan. oru daaw gi moom looloo ma a ah, rey. ah tane woon na dëgg tane woon na trop. wallaay ndeysaan na ma sax man may joxe suukar koor waaye ren moom. Ah. dara yow xoolal ndog yu baax ni ma daan defal. nga dëgg ay ginaar yooyu yëpp dafa daan ñëw rek. man kay ren ren. ren daanaka ngurbaan rek laay lekk. ah day na waar daal. ngurbaan mais nag sa ngurbaanu bërki démb bi neex na de. ah man togg rek laay def géej foo ko jëndee. <laughs> yow géej gi rek nga ci xool. géej gi googu forax na géej gi géej gi <laughs> ah, am na yu ma gis ci biir. Mm-hmm. yooyu di nuroog gunóor xam ma kuttu yooyu. loolu xam ma lan moo xam ma lu koy waxee. kii nu mu tudd dinañ la la jàpp caarit. <laughs> ay ay dama ko rek laay def dama ko teel a mën dama ko teel a jàng. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw noo def. ça va. su ngeen nekk. ça va. maa ngi nii. yaa ngi ci jàmm. maa ngi ba jàmm bu baax. alhamdulilah. am sa yaay. muy fa. mu ci bu baax. alhamdulilah alhamdulilah. gën naa laa gis de. maa ngi fi. jàmm rek. xamee nga ko. kii de moom xamee ko mooy kanati. xamee woo <laughs> doomi pende ji ci koñ bi. daa màgg léegi ndeysaan ndeysaan doomu Anta ak uh, Oustaz Diallo. wallaay daa màgg léegi xale yi a màgg. man néew ma ko. Eh, xale yi de moom noonu la rek. Mm-hmm. moo tax koo ci gëj a gis rek. Mm-hmm. tabaarkàlla boo ko gisee mu daal di soppeeku. loolu naa def ana sa papa. Mm-hmm. muy fa ana sa yaay. muy fa ana sa papa kë démb rek ñoo ngi déggante. Uh-huh. ndeysaan ana sa tonto Jili. ñu ngi fa. waaw ñu ngi si jàmm. ñu ngi si jàmm papa sax moo ma yónnee woon. Ah. moo ne pour ma ñëw indi leen ah. jox dëgg yàlla kenn mënu koo fay. papa de yàgg na ko de ah, yàgg na yàgg na ko de tabaarkàlla moom kenn du wax dëgg yàlla. dëgg yàlla mm-hmm. nag lu waay asaa mm-hmm. fa mm-hmm. alayha def lu baax moom heure bu ne la baax mhm. waaye rawatina ci weeru koor mhm. ndax weeru koor dañuy profitoo mhm. di def ay yiw daanaka ni ko doon fule bu yàlla boo defoon benn mu def ko fukk te boo defee benn def koy ful tabaarkàlla yal na yàlla fay ko yiw soxna Fatima ah konte liñ doon ñëw ah papa moom kenn du ne guleen moom man de ah, xam dem sax waa doo toog bàyyi mu ñëw dee reer waaye papa yi noonu ma sa wàcc ñëw lool ay waay jërëjëf waay boo demee nuyu ma sa yaay lu bare bare ko dégg baax ah waa baax na baax na gisee tamit gis papa pare ah ah waay ndeysaan yow ne lii jarati ah waay la jox loolu dama bëgg ah, sama numéro. waaw ndeysaan. baax na doom. merci beaucoup baax na dem xam naa benn naa la woo incha allah. Ah, hmm. ah, xale bi de wax dëgg yàlla xale bu yaru la. Hmm. xale bu yaru la lool wax dëgg yàlla xoolal lii de daanaka moo ma ko joxaat. xam naa nga dolli ko ci lool rek comme maa ngi doon jooy lu ma la jox yàlla def mu indi ko. yalla hmm. yalla fay ko ba dëgg yàlla yaru na lool xam ñu ñaanal ko waye ndax nit bu defé lu baax dang koy ñaanal ma ha xala bi li rek la la doon jox li de la ma doon jox wa ma gis ci mom lu mu ci doon ah man du ma ci xam man de dama defe ne rek nit gan boko de gungé wala xeyna lim ma doon jox ni tax mako doon jox ci sutura ndax euh, yonent bi neena bu de da ngay joxe yu sa loxo jor bu ko de joxe sax sa loxo chamoy man nako koo yek loolu de man laa ko jàppee. ah leen de xam naa ko. ah na bët de. ah tiit xale bii. ah foo bët ah, ay ñaari mag yi jëm mu toog ay kilifa nga naa ma gis la ak wiijoom bii. Fatou yow dal na sa xel mais man dalu sama xel. Ah. lii mënoon la ko jox fii rek du suukar koor rek lay joxe mënu koo joxe. Fatou nag yow la ci woo. yow baax nga waaye daa mel ni sa fiir gi moom day gën a màgg rek. Eh, ah ah Fatou ah damay njort ak damay xalaat. ah wax dëgg yàlla Zahra de loolu dama séntu ma ko ci woon. baax na baax na loolu de séntu ma ko ci woon. séntu ma ko ci woon xam naa daal ah. dugg boobu de boo ko mënoon a bàyyi moom dana kii kii sama doom la. ma ni doomu wu ma man maa doomu wut. xale bi moog sa doom bee oh. daanaka ñoo tolloo. man yow ngay ngénte nit pare takkar moom moo ay waxu loolu. moog soxna Yacine daanaka ñoo tolloo Fatima. waaw oh, baax na jërëjëf. daal en tout cas moom moom sama ngëm. en tout cas lii moom xam naa ne ginaar yi sax. ah loolu. ah moytu koo xorom ba mu weex de. lu am moytu koo xorom de def ko nan ko daan def rek nag. loo am ko daan def rek nag def ko nag sahra ci biir. sama sama werde yi. waaw sama xar. fii de def ñu ci ci di man fii benn xale bu ma fi dugg. xale bi wow bët. ci ci kon xale yi la tax ñu dëgër fit waaye dina xam ne kii maa ngi ndayam la man lii duma ko toogaale sa xale bii soobee yàlla dina xam ne maa ngi la du maa ngi moom waaw jox suuf Dramé. waaye gars yi de waxoon naa leen nañ daje fii nii tey mais ba léegi gisuma nga mais xam naa gars yi ñoo daal mais xam naa ñu ngi si daan. waaye tamit teguñ dara lu leer surtout maxu moomu noonu chaque jour moo ko bàyyi taal. ah sa xarit boobu nga tegul leer nga sa loolu. waaye tegul leer gars yi duñu dara. mais nice sant ni. Eh, Omar. Eh, Amet ci loo ne am jàmm. waaw bëgg seen tur léegi. ci loo ne gaay. alhamdulilah sant. yéen a ngi noos ah. nice baay. alhamdulilah. waaw eh, ça yaa am jàmm bu baax. wala. na nga tey grand ah. Amet. ko en fait maa leen wooloon tey fii nii gàlle bi yéen gën a xam rek. Mm-hmm. dama bëggoon ñu kii nii comme ça ñoo ma fon su koor gi kii demee ba digg. Mm-hmm. comme waxoon nañ ko naa da ngeen ko fàtte rek. Ah. dañoo bëggoon ñu génne ay ndog yu am gën a joxe loolu am gën ko waxee dëgg la de loolu yàgg naa cee xalaat. ñu dugg ci koñ bii nii suñuy grand ñoo fi ne ñu cotiser laaj. waaw génn ñu génn ñu jox ñu def ndog. loolu moo gën a laaj moo mi. dañuy xëy te dañuy guddee wàcc donc si benn version loolu naaj la quoi. bilaay mais mais loolu moo gën sax gaañ. Uh-huh, mais rafet na mais xanaa buñ koy def ñun dañuy génnee suñ poos toog gundagu joxe ko. waaw tamit. ah loolu si koñ bi yaa ma gën a xam. Uh-huh. ket foo gi xëy leket dugg si koñ yi di ket yaa ma gën a xam après ñu loolu moom dafay nirum gis seen. saa déglu ma rek xoolal nañu waxtaan. ay saa nii ah. ñun ñëpp. nañ génnee siñ poos ku nekk deux mille mbala ku nekk mille francs ñu génne toog kafe mais mais boo tegee fii nii dina am ñoo xam ne xoolal dañuy jaaxle jox la seen lugu am ñoo xam ne kenn day niru gis daal. saa yow lu nga foog moom moo nekk da ngay liggéey ay wala waxuma booy mais yow dégg jàngal laax dara xam nga li ci ngistal ak dégg la dëgg la ma hmm, yow hmm. sama gaan nga sama waay nga lool mais tey ñaari booy dañ teg ñu lu mais àdduna bi na leen naa ngeen dëgër dafa métti yow da ngay da ngay xëy ñun dañuy jàng fi ngay jëlee tamit ah fi koñ mën a bi laa ci moo moo moo ci amul loolu dara sax quoi bàyyi noonu rek imagine nit ku liggéey bàyyi ba wàcc ni gaan ni su ñëwee bàyyi xoolal heure doo fekk soow nga jox ko loolu du ngi sa quoi loolu yiw doo nga sama tiyaaba quoi mu ngi sa da ngay wala dëgg ga loolu jàmbur la ak kii rek ak yëg la ak dénk rek booy moom ñaari booy moom man ak moom kii mais tey nga moom naa dem teg moom ah, tey moom ñoom ñoom nga ànd teg moom faar tey moom nga am ah, na daa ko waral ñu am déedéet man man moom du ma dem laaji ji moom. luy loolu laaj man moom du ma dem laaji ji. ah grand grand yow xàmmeetuma la de. ah, ah non man moom man moom. ah nii nii ay nit ñi ànd dañu dëgg te amul neexal kuy toog mu toog. ñu ngi doon parler amul parler. waaw ah, ah, naa du mën a. dem yow moom yow moom booy dëgg dëgg la du ma. ko seree. waa jeeg ni toog sa biir kër. Ah, gis nga man damaa nam ma dara man da ci pare. da pare moom da ba ngay jàng. yoo xam nga ma dis. <laughs> nekk aw góor këram na premier daaw. tëj buntu. waaw kenn du dugg. ah sa sa sa kër daal. yow réew nga de. moo ko sa kër daal. dama lay nopp de. kooku rek sama joli kër bi nga xam ne dafa boobu nga naan kër daal. kon joli nga koy woowee noonu. waaw joli sa joli kër maa la ko wax. xanaa gisoo ko temps yi. gën naa koo gis nag. temps yi dafa am yaram njool ci kaw. waaye waxuma loolu. dem ci madame Touré. xale bi. waaye bu mu fa demee wa yàgg. xoolal bagage yi xeetu baax baax. jëpp a foofu noonu maa la ko wax. Ah, yi cuuraay yi ne ak parfum chambre. yoo xanaa gisoo joli cœur temps yi dem fenn ci néeg bi rek. dëgg cuuraay bi su ma ko defee cuuraay bi xoolal koñ bi yëpp. mooy ah. ubbale. waaw ah, kon baax na. waaye fu waaye toll xet bi fu waaye toll xet bi di la xeeñ. Marème Diouf rek ku ne xam na ne jéeg bu waajal sa combat bu baax. loolu moom mbiram la. tey mu yow maa la ak maa bàyyi di tamit. su ma laa bàyyi xaw lu waral lu ñaaw nag daam lu ma déggal xanaa. su ma laa déggal dara. xam nga tamit dañu nekk ci weeru ngëneel weeru promotion. Mhm, ku def benn ñu fay la fukk. Mhm. sama pap xam nga ne moom social lay dox. bu weer ko xasee ba tër man dootuma am jàmm. yóbbu suukar ko yóbbu suukar ko te am ñoo xam tamit amuñu ñu ndogo mënuñoo taxaw si mbedd di tàllal loxo kon fu lekk nga dem seen biir kër yi jox leen ko mooy gën ci ñoom moo tax daal fu bu weer ko xasee ba teru dootuma am temps waaye yaay sama xarit xam nga duma la bàyyi la maa ngi koy rafetlu bu baax aussi te am na gor yoo xam ne mënuñoo toll tàllal loxo di ñaan kenn donc boo jógee dem jox ñu ko yelloo def nga lu rafet torop te diñ ci am tiyaaba def ko ci sutura daal ci biir sukkaru koor gi ma la wax naan sukkaru koor gi daa am lu ko sàppali ay waay kaayaa ngay démarré ngay ma xaaral ma en na bu baax bi daal suñu fab mu ngi xam nga Babacar Sarr xam naa ko bu baax a baax daa ilaa fab mu ndekk ci lim bee li sa am ay Fatou Kiné maa dem këram fekk ko moom jéegu mbonaatam meex ñu ne dañoo toog kuubale noonu laal seeni bula sama sama sama statut keroog woon nga koy gis mosulee rouge bi naka jekk ma gis sa statut ma ne Fatou Kiné mi am na ci lu mu nekk fa laa demoon toog di zoom paa bi ñoom paa bi coofee na roofee na nu ne bi bu la diriyànkeem boobu jàppee nga xam ne bu dugg seen kër day fees bunta bi <laughs> waaw nga xam ne ma feesee ci buntu bi laa koy buuxee mu génn waaw baax na man de moom xoolal buñ lay doon man mënumaa àtte àtte da gis na ni ma toll damaa prématuré <laughs> faa bopp doomu laa tal talo ma àtte prématuré nga am foofu moo tax bëgg maa dugg ci booy eh, baax na yow daal toppal paay rek amoo benn classe maa guddee nag yow bàyyi tuddee paay rek sa xol bi di jeex man man forma ci paay. maa ngi guddee xale góor ñoo ko ñëw daw xam nga sama yaay mu may xaar si tàndoor. ay yow bu yàq waxtaan bi waxtaan bi neexoon na ba pare. xoola yi bëgg naa ko nag de. kaddu jëkkër yi rek jëkkër yëpp si jëkkër si sëy bi dañ bokk. ay gis nga li ñuy sëy sëy bi tamit. kon del defal ba mu baax li ñuy def. bu mu baax. ok kontaan naa ok gis nga jëree. Ah, ok.